événement mbaaraankat yi tabaski ñëw na événement mbaaraankat ma daloon daaw ba jënduma sëba loolu waaw ma doon bësuwaat ma ne xaaral jaaraan loolu sax gàlle quoi xam nga. mais tabaski bi nag loolu kay yaa ngi koy préparé. booy xoolal rek xoolal xale bu baax laa. da ngay sóob rek da ngay sóob rek booy xam naa la. ren xoolal xale bu baax laa. waaw la laa la ñaan la laa la ñaan ngir yaa ren na nga ñam. chaque année nga redoublé. xoolal mais ren des neer la may ñam. da ngay sóob rek da ngay sóob rek en tout cas daal boo amul. man dama moom expansion expansion Macky Sall Macky day day day ñawal gars yi quoi mën nga dem foofu jël sa mesure. waaw looy teg mën nga dem. xoolal ren desinère laay ñëw. si piste création laay dem. dal mu xoolal mu xottil ma modèle bu garaaw. ah yaa ko waaw waaw ah, baax na. jubal xale bi romb gis bi nii kan booy booy nita naa ko booy bi nii. ginnaaw kanam rëbb la moon yaay daal ndar booy. kii maa lay jox ay information de taille si moom. gis nga booy bii nii gëmul dara. booy bi <laughs> gis nga période tabaski bi ñu toll nii gars yi dañuy absenté dañuy dof. non booy xale bii nii yow xam nga xale bii nii. donc c'est jëlaat. famille Fidara la bokk. loolu ngay laajte nii. ah doon na toog a bokk. booy yow xam nga ma booy. dugg si la garaam xam nga ma ah, si loolu. waa dara ko seen loolu yow. quoi waaw justement sànq moom ma doon woo dama sangu quoi yaa ngi ci papa naka tabaski bi nag yaa ngi koy préparé papa lu mu la waxoon nag papa newoon naa la nga changé am sama iPhone waaw papa yow duma xam kañ ngay ñëw waaw jàpp si waay waaw tabaski bi nag waaw yónnee goo ma dara de non non pas pas 300 moom sérieusement pas de 400 avec pas Je nga ma yow Papa Pas lañu waaw bàyyi rek Pas, sérieusement ah merci Ah. ok tu ko dégg. Comment ça va. oui je vais bien. est-ce bien euh? bon sur mon iPhone 6S 228 128 que je vais bientôt changer pour avoir l'iPhone X, tu vois. Et tu peux même le voir, il n'y a aucune fissure. D'accord. Tu vois. Mhm. Bon, il fait 11h. 11h waaw grand wu ma. waaw xam nga ne yow xàmmee naa la si ce bi de. waaw xàmmee woo ma man. ça paraît évident nga xàmmee ma. non parce que xàmmee naa la dinaa lay doon mais lu ma la bàyyi xel mais xam nga ne yow jantam nga comme tu peux le voir waaw. Ah.

Donc ça te dit qu'on te voit demain mmh, D'accord, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Donc demain, dans le cours. Non, mais... Non, non. Billet Sérieusement Aïe. Euh, On fait comme ça alors Ouais, d'accord. Ok, bye. Merci. événement mbarankat yi tabaski ñëw

eh mais attends. waaw ana ma amee la ma war a jox. lan la war a jox. moo taxoon nga indi ma fii tey li ma waxoon tey pour ma ñëw fi jël. yow nag ça se voit que jigéen tabaski dëng bu tabaski bi jege si rek ngeen mel ni ku dof yéen. dana leer sama ko waxoon sax duma bett ndax. Eh, xam nga eh, fii ni amoo dara parce que yow sa caleçon déjà bëtt na fu kañ a mel fu kañ a fanaan. kenn porte. yéen a yéen a yéen a am am merci après voilà allez ngeen xale yi jigéen yàlla laay waxanteel. bu tabaski bi ñëwee rek ngeen mel ni ku ku leen si wax da leen di jox desineur falaale ngeen bañ ku leen si wax cheveux ngeen bañ ku leen si wax sax talon ngeen bañ gis nga loolu baaxul boo leen ko defee xale yu góor ñi da leen di bàcc. événement mbaaraankat yi.